nuyu nañ leen bu baax jaajëfal leen ci ànd bi ngeen ànd ak seen site internet bi di RTV Dakar li gën a fës ci bopp xabaar yi nag dañu koy doree foofa ca diwaan bu yoof nag lu tax ma gendarmerie rek daal di wër nag kër ki nga xamante ne moo fi nekkoon ancien ministre de l'éducation di Cheikh Omar Anne nemmeeku nañ ay fan a ngi nii ci ginnaaw ay jegeñaali ex ministre bi nag ñu ngi daal di yëkkati ay kaddu rek di wax teewaayu gendarmerie yi ci boobulee bërëb nga xamante ne rek daal nañu woon faral nag di fa ñëw mbir mu nu na jur ay débat yu bari ginnaaw reddition xamante ne rek defoon nañu ko ba daal di def nag di ko de l'ordre yi nag ci wetu këru kii di Cheikh Omar Anne mu fi nekkoon ancien ministre de l'éducation nationale ñu ci bëri nag jot nañ cee bind ak a wax waaye nag bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi nga xamante rek suñu nattangooy direct news daal dinañu koy xamle boobu le surveillance nag du lenn rek lu dul nag caytu bu baax nag fi nga xamante rek moom mooy littoral Fall yi maanaam daal géej gi la ñuy di ceytu ginnaaw enquête bi nga ne rek dafa bi nga xamante la Cheikh Omar Anne la bopp moomel ñoom autorité yi nag daat nañu indi ay leeral rek ci teewaayu force de défense et de sécurité yi nga xamante ne rek ñu nga ca boobulee moom mooy ndox mi ak géej gi loolu rek moom moo tax nag ñu dal di fay bëri ay tànk teewaayu policier yooyu nag naam bu fekkee ne sax li leen fay yóbbu mooy contrôler li nga xamante moom mooy littoral bi waaye nag nekk na mbir moo xamante ne rek ay jegeñaale ñi nga xamante ne rek ñoom ñooy eh, Cheikh Omar Anne nag dañoo daal di gis ne rek yëfi daal am na daal lu ci rax waaye nekkul rek opération de surveillance képp rek moo tax nag ñu fa nag ay gendarme ba tey ci wàllum xibaar bu ñu jógee foofu nag dañuy àddu rek wax ci déclaration politique générale bi nga xamante ne rek élimaanu jëwrin bu njëkk bi nag na mën a ko amal eh, kii di Ousmane Sonko moom Alioune Tine daal di nay yëkkal ci ay kàddoom daal di koy rek jagleel ñii di député yi ne na daal nañu daal di dal rek te daal di respecté nag kàddu yi nga xamante ne rek dinañu faral di ko yëkkati kii di Alioune Tine maa ngi lay ci député yu quatorzième législature yi nag ñu daal di tëj seen gémmiñ ñi rek daal di noppi nag ngir ñu mën a amal déclaration politique général bu jaar yoon waaye lépp rek nañu ko daal di def ci te ndax nag la ñu soxla jamono jii du lenn rek lu du parlementaire boo xamante ne rek dafay ànd ak démocratie bu mot sëkk waaye nag ay député yoo xamante ne rek dañuy daal di mature ci lépp maanaam mat sëkk ci mbir mu nu mel nag ma ngay sàkku ci député yi rek ñu daal di ànd ak seen dignité gu mu sëkk di kàddu yi nga xamante ne rek njiital cinq 5 Africa Jom Center di Alioune Tine daal dina koy yëkkati nag ginnaaw bu mu ne am na confiance bu baax ci suñu parlement bi nga xamante ne rek jamono ji mu nga ci tàggatoo waaye nag nekk na mbir moo xamante ne rek bind nañ ko ci taarixu politique bu Sénégal mu daal di yokk nag nee na daal bu ñu moytulee rek nit ki ëllëg ci ajjuma ji yemoo fukki fan ak ñett ci weeru septembre ci atum 2024 kii di ilimaanu jawrin bu njëkk bi nag di Ousmane Sonko dina amal ab déclaration politique générale am dina ngeen jëf ci ànd bi mu leen fàttee abonné bés cross de notification yi ngir mën a am yeneen i xibaar